maladie bu moom yi dali yàlla na ko yàlla xaare àjjana bu ma ko jëlee wax li ko rey yaa ngi dégg wax li ko rey bu ngeen gisee ma wax ko parce que dama doon bañ ay nit génn naan euh, euh, Wally Seck dafa sacrifié euh, rakkam pour jël disque d'or wala Wally Seck dafa sacrifié moomi pour am disque d'or loolu laa ko doon bañal comme liñ ko doon waxal ci papaam moo tax ma wax malaati yëpp di wax lu ko rey te jëkkëram jaaraat na ci li ma def garaawul loolu ba mu jàllee gisante naag waali ñu seq lu bëri mais li garaaw mooy waa Ramadaan saraxe gi may saraxe laa du nangu man Amady Badiane mënumaa woo tegal ma ci Baye Sall wax ma li ma joteeg waali ma xam diggante waali Seck ak ba Badiane ni mu mel mu woo ma téléphone ne ma waali toogatug ñun dem ne ma toogatug ñun dañoo bedd vidéo yeeg soo yeeg yëpp maa ko daan def léegi ñeneen ñoo koy def buy dem Paris ñeneen lay àndal ñii woo ma téléphone naan ma euh, euh, Euh, sëyu Alioune sekk ak ki nga xam ne moom mooy euh, doomu Baba Thiam ji wa jaaga d'accord si woon te sëy bi day tas trop tard xam ne seen bopp maa ngi seen i audio dama leen di xaar ñuy génn dama ne la Adama kenn fayu ko boo fay di am ñoom ñoomay fay parce que wax ji ci ñoom lay jóge man damay jottali rek li ma bëgg leeral ci sénégalais yi mooy bépp ku nekk Ramadaan boo ma woowatee naan ma Waly Seck nangam Waly Seck nangam Ramadaan nangam nii nangam dinaa afficher sa photo teg sa enregistrement ne diwoo may woo parce que man damaa soxla ci li ngeen may def Amady Badiane mënoo maa woo wax loo ma ne ma bu ma ci feeñ ma def li may def nga dem toog seen bës naan waaw aadama yow lay adressé parole bul waxateeg man bul dugg samay biran et puis dafa jot ndàngam ndàngam fekk yow yaa ma woo Amady yow yaa ma woo tegal ma problème bi Amady xam nga ne yow problème bi man mënu ma koo faj du ma jot waali mënu wax ak waali jotuma mbokk yi waali yow yaa waroon dem ba ci waari nga wax ak moom wala nga dem ay bokkam wax ak moom boo leen fa bàyyee ñëw ci man loolu mooy da ngaa bëgg a euh, ma ma dóor ma dóor ko ci internet bi parce que loolu nga bëggoon maanaam ma weer leen ci internet bi parce que yow xam nga ne Adama yàq Sénégal la man waaye mënut a defar weer nit laa man nga am sa problème ñëw wax ma ko bàyyi leen di jaay affaire faux man ko mën naa seq ak yow dilu vingt milliards vingt milliards mën naa koo seq ak yow ñu sàcc ko boo noppee damay noppi mais boo génnee di ma tayle bu ma génnee damay damay damay wax lépp ni mu demee looloo tax ma leen di enregistré ñu bëree ngi naan vocal yi war a génn enregistrement yee ko yàq moom nga tas affaire bi am ngay am ngay dan lay woo wax la li lay wax bu demee feneen bi ne xamuñu la musu ñoo wax ak yow musu ñoo dégg ak yow jël alxuraanu karim di te kaamil du ay jaaxaat kaamil c'est faux li ngay teg ci kaamil bi c'est faux kaamil bi bu fayoo rek mooy war a lii dama ne la ñi rek ram daan laay waxal am na ñag ñoo xam ne nii wax nañ ma ci jaaga wax ma ci sëyu euh, Alioune Seck bi ak li ko yàq ak ba muy waaji sëy si ba mu jëwee jaaga réaction ba yooyu yëpp wax génn ko léegi nag ñooñu laay xaar kenn si ñoom génn tontu ma barki Serigne Babacar si ma teg seen i vocal ñoom maa ngi leen di xaar dama am benn dossier boo xam ne dama ko dama ko tuddee dossier yàq Waly Seck ram daan yàq Waly Seck laa ko tuddee parce que ñoom ñëpp même nit ñi la ñooy demaat ci waali naan ko aadama ni waxee doon te ñoom ñoo lay woo di la sant bu fay di am bu fay am kay xanaa ñoom ñoo may fay parce que ñoom ñoo may wax loo aadama day jottali rek aadama da naan ko waxaat rek mu wax ku ma ci woowate ci ñoom dinaa la afficher sa photo bu ngeen amatee problème sol leen seen i daal ngeen dem ba ca waali bàllaagu sekk seen rakk la seen xarit la seen soppe la ngeen waxtaan ak moom bu ngeen ameetee problème na yem ci yéen bu ngeen ameetee problème rek leen leen ko seen biir aadama munu ci dara munumaa toog ak waali munumaa gis ay mbokkam munumaa waxtaan ak ñoom yéen a nekk ak waali di liggéey ak waali di yaroo ak waali di yeewoo ndog waali bu dee yéen mënoo leen ko réglé aadama moo leen ci doy aadama li man mooy weer leen te loolu ngeen bëgg yéen kuy divulguer seen di secret ci biir internet bi bu ngeen pare da ngeen toog ci plateau yi ma nekku ma xamul du ma ko nangu xam ngeen ma yéen a may woo vous me connaissez très bien te ñi may waxal xam nañ seen bopp xam ngeen ma bu baax yéen a may woo di ma wax may jottali Adama deful dara day jottali rek enregistrement dina ko teg parce que lu mu wax ñu ne ko da ngay fen du dëgg fekk yéen a ma woo dama koy téye coow li nag pare naa ci duma ci waxaat ay ñoom Aram Ndiaye maa ngi leen dégg ñu ngi leen di dégg micro ñu naan waa Waly Seck Amady Badiane ak Waly Seck dafa yàgg kenn xajul seen diggante saytaane yi nangam kenn jéemul xaj ci diggante kenn. diggante Wally Seck ak Amady Badiane ku ci dugg Amady Badiane moo la ci xajal ndax bu amee problème ak Wally Seck waroon na koo mën a régler ak ni muy yàgg-yàgg Wally régler ko seen diggante yéen ñaar wala mu régler ko keneen ku jege Wally mais am aadama munu ci dara moom moo bëgg ay affaire am ñëw ci internet bi pour nit ñi di ko dégg bu paree naan ma du ma ci feeñal bul ma ci feeñal ak bugguma cee feeñ loolu man toogeewu ma noonu loolu mën naa koo d'accord mais boo paree boo ma saraxee man damay génn nii la wax ji demee ku dut naa féq bàyyi leen bu leen tere journaliste yi téeméer naan leen mbokk internet yi mbokk internet yi ñu ngi leen jaajëfal tey nag dalal bi ñu ngi amal ki nga xam ne moom mooy Arame Ndiaye wala Maïssa Ndiaye wala Benjamin diggante Amady Badiane ak Adama audio yi génn ak lan nga ci xam nga doon naa féq nekk fa aadama doon koo yónnee waaw dafa bëgg a yàq ñaari diggante yi ah, diggante Amady Bañaan ak Waly yàqal Waly Seck dañ koo fay 4 millions pour mu yàq Waly Seck te digganteem ak Waly yàgg na c'est faux xanaa buy fay di am ñoom ñoo ma fay parce que ñoom ñoo ma yónni ñoom ñoo may woo ñoo yëgal maa ngi Europe ñoo may yëgal di ma woo li xew ñoo ma koy wax même studio bu di répété la fay xew ñoo ma koy wax kan kan lan dàqul kan lan moo lekkul kan moo naanul kan moo doon werante ñoo ma koy wax ma koy téye xanaa kon ñoom ñoo may fay kenn fayu ma nan euh, kon ñoom ñoo may fay parce que ñoom ñoo may wax koy jottali ñoom ñëpp yor naa seen i audio ku ci génn tontu ma man aw ma lu may daw xam nan ma maa leen defee man Adamo pare naa ci wax ci dootuma ci waxaat ku journaliste yi dégg micro boo nekkul naa fekk dangaa war a wax ne Adamo waxul dara Adamo deful dara ñi def dara mooy ñi koy woo téléphone di ko wax seeni affaire pour mu leen koy waxal ci internet bi ndax day jottali rek ku ne xam ne ne Adamo tas Sénégal la mën waaye mënut ta defar koo nekkul naa fekk bul la dénkee da nga naan di bajaan kat li mu def waru ko a def parce que man du balaa balaame aadamo parce que Amady Badiane bu jotee Waly sekk war naa mën a dem jël téléphone am euh, woo Waly wala mu dem ku jege Waly ñàkk luñ ko mën a gisee wax ko ay problème am ak li ko mais bu bàyyi fa Waly bàyyi fa ñu jege jaaga jéggi euh, frontière jaar Maroc wàcc Bruxelles euh, jaar Bruxelles jaar Italie wàcc Allemagne ñëw ba ci Adama di ko woote Adama mënut a toog ak Waly mënut a gis Waly di ko wax ay problème am pour mu génnee ko ci internet bi Adama bu waxee loolu nag après boo wëlbati ko da dem ci ci télé bi saraxe Adama naan aadama yow laay adressé parole bul waxateeg man bu suma laa tudd du ma wax ak yow du wax kii yóggante mu ay vocal jël alxuraanu kan di ci waat c'est faux yaa ma woo yaa ma wax yaa ne ma jottali nan bàyyi naa féq sama digganteeg waale loolu yàqu ko waale am na ñoo xamante ni bu ma génnee woon seen i vocal te ñu jege waali sekk barki Serigne Babacar si man duma ma fen Serigne Babacar man du ma ñuy waat alxuraan te yoru ñu dara su suñu génnoon su ma génnee seen i vocal waale bàyyi leen àdduna yéen ci ngeen di daree seen ram an yàqwaale laa ko tuddee te ñoom ñoo may woo ci seen biir di ma nettali seeni affaire pour ma koy génnee ci internet bi am na yoo xam ne sax dama koy bañ nit boole na ma nit ba tàyyi ne ma waxal ma ci diw nangam waaye bu ma ci feeñ bu ma ci feeñ gi laa sonn parce que man ngeen di saraxee day mel ne dañ may fay Matar damay fay wala wala Pape Diouf wala Youssou Ndour pour may yàqwaale te dañ ciy profité ndax fi soo bis bi toll moo tax ñuy xalaatee foofu fekk c'est faux yéen yéen a may woo yéen a yónnee yéen a wax loo ku ma ci woowati naa la enregistré teg la ne diw moo ma wone ma yàqal ba diw ñëpp di dégg